Euh, Djibril Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Djibril waaw nga nekk euh, leader au Front pour la République alors euh, parrainage bi démarré nañ ko ci 27 septembre bile naka gisee système bu bees bi nga xam ne mooy permettre candidats yi mën a participer à l'élection surtout système mu bu bees bi. waaw xam nga parrainage moom li ma si waxoon rek mooy di la gërëm di la sant di nuyu auditeur ak auditrice su mi FM yëpp ak ñu di déglu si seen plateforme euh, di wax ni xam nga parrainage moom lu Sénégal expérimenté la depuis deux mille dix huit deux mille dix neuf élection yi parrainage moo amoon euh, permettre woon mu mu mu taxoon ñu amoon juróomi candidat euh, si candidat yooyu ñu mënoon jàll ba président Macky Sall mu joone amaat deuxième mandat bii parrainage dafa am rek euh, lu ñu ci yokk mooy d' abord dañ ci yokk parrainage boo xam ne euh, waa pencum ndaw réew mi mooy député yi man ci bokk ak tamit ñu nekk maire ak ñu nekk président conseil départemental mooy ñuy jiite gox goxaan yi loolu lañ ci yokk moo war maintenant ñun nag bi nekkee si dialogue bi euh, di ci waxtaan ban defee proposition bi ñu mën ko acté dañ waxoon ne ñi am ay maire yu doy ba mat cent wala ñu am ay député normalement waruñoo bokk ci beneen système parrainage mooy parrainage boo xam ne dañuy dem wuti ko ci ñi inscrit si liste électorale yi mais ñu bari dañoo bañoon parce que ñu luñ doon xalaat mooy bu ñu demee ba lancer jeu bi bu ñu dem collecté ji ay parrain ñooñu bu ñu collecté parrain mën nañoo indi ay jafe-jafe ci bu ñu demee di déposer muy waral doublon yooyu nga doon wax sànq. Mm-hmm. parce que ñoom bu fekkee ne ñoo la jiitu ñu bàyyi seen parrainage bee nga xam ne élu am nañ ko am yëpp indi parrainage bi dina gàllankoor ñeneen ñi ba ñeneen ñi ñu mën a am possibilité pour bokk ci élection yi kon donc loolu moo ci xaw a ànd ay jafe-jafe mais Sénégal am na ci expérience parce que dem nañ ci élection présidentielle dem nañ ci élection tamit législative kon donc parrainage léegi dootu gullit ci Sénégal mais jeu la bu ñuy améliorer à chaque fois et gis nañ ni que que que gars yi dem nañ laaj waaye li si li ci li gën a jaaxal tamit. mooy li xew DG. mooy que. Hmm. Ousmane Sonko dafa am mandataire bu mu délégué mandataire bi ñëw ñu ne ko seen motif que ni inscrit sur liste électorale yi ñun nag ñuy laaj en tant que député li tax lu waral loolu ak ban loi moo ko wax ndax yaakaar nañu bu fekkee ne dañuy kale conseil constitutionnel si ñu jot a jàng ñun moo war wax kii dem ak ku dul dem. waaye bu dalee rek lu dul dem jëli fiche pour remplir ak déposer defe naa ku nekk war nga ci am wàll waaye bëgg nañ tamit waa DGE gindi ñu si wax ñu lu waral lool ak ban article ak ban loi moo ko tënk ba ba ku ku mel ku amul euh, koo xam ne amul carte électeur nañ wax lañ ko waxagul wala ku mel ni Ousmane Sonko lam moo waral que ni moom warul mën a jot fiche ak tamit warul mën a bokk ci prétendant yi loolu tamit jaaxal nañu lool. waaw soxna si. donc yow loolu d' accord si benn yoon. waaye xaw na ma jaaxal parce que. Hmm. du question d' accord waaye tamit il faut ñu édifier ñu. parce que loi da koy édifier boo tegee dara. boo defee dara da nga naan ak motif bi lii ak lii la. Hmm. mën ko ñu mën a xam motif bi lan waaye li ñu déggagul mooy dañ ko radier si liste électorale kon kenn war ko jox fiche parrainage war nañoo laaj nag ne loi bi kat moo bañ loolu ak lii ak lii bu ko defee ñu mën ñu gindi en ce moment mën a xam ne motif bii kat moo tax. joxuñu ko ay fiches yu parrainage waaw. d'accord léegi léegi système mu parrainage bi Djibril Diop. moo gën a yomb bu fi amoon wala lan la parce que dafa mel ni dafa bëri ay ndëgg sërëx ah. xam nga parrainage moom yomb. kooku moom ku ne moo gën a yomb da ngay wax moo gën a difficile. parrainage parce que dafa am ñaar parce que da ngay daw wuti ji citoyen daw wuti ji député yi daw wuti di maire mhm. kon parrainage bu métti la te parrainage bi du yomb parce que li tax du yomb parce que dañ ko seq ak ñoo xam ne am nañ ay député am nañ ay maire te ñoom ñu ngi si terrain di wuti te ñoom mën nañoo collecté ba pare téye see ñenn ñoo xam ne dayatul leen dara si collecte bi ne leen bu leen nekk kenn léegi bu ñu téyee ñooñ mën na bloqué yenn candidat yoo xam ne mënoon nañu am sance pour mën a am si parrain yooyu pour mën a def bokk waaye ñoom li ñuy bëgg mooy tëj jeu bi loolu tamit ay difficultés yu bari moo tax ñun ñu waxoon ne si dialogue bi dañu war a def ci loi bi ne képp koo xam ne am nga nangami député muy treize député yooyu wala nga am nangami maire yow de parrainage bële du citoyen waroo ci bokk bu ko defee léegi nag ñi amul parrain yooyu dana leen mën a libérer mën leen équilibrer que ñu dem wuti parrain yooyu. mais bu fekkee ne yow da nga am fii am fee yëpp nga ne non non ku nekk yaay wuti beneen dina difficile parce que tey jii boo demee ne da ngay wuti député benn bokk yaakaar yi pour ñu parrainer te amoo député. Mm. xam nga kooku mu peine perdue la. mais ñoom bu ñu bëggee ñëw nag si citoyen yi ne nan leen parrainer. mun nañoo am kon li nga am mën la peut na buñ la njëkkee déposé bu fekkee ne ñoom déposé wu ñu bëri. Mm. muy optionnel bi ñoom ñu déposé parrainage yoo xam ne parrainage citoyen la. Mm. mën nañ dem ba indi indi problème yoo xam ne. ñeneen ñi si yow ay mm. question de doublon lay indi. te question doublon lay bu ko indee léegi nag yow day mujj obligé yow dañ lay mujj obligé baare bu ko defee ñoom ñu jàll léegi ko defee nag ñu gàllankoor ay candidats loolu nag moo si nar indi ay problème d' accord kon candidat yu yu yu bëri aussi nan ko gis parce que actuellement euh, ñi déclaré ne candidat lañ euh, cent quatre vingt dix lañ si xayma noo ko gisee Djibril waaw man man awma ci benn inconvénient ak problème parce que day ñoŋal démocratie sax parce que li ñu naan parti politique yi bari na enfin mm. ah, am na nit ñoo xam ne kat jóg nañ kenn bañalul nit ku nekk mu dem déposer ji mm-hmm. parce que jeu bi terewuñ ko kenn remplir les critères yi loi bi wax rek mën nga déposer waaye waaye nañu xam ni ni parrainage bi demee ak ni muy demee ñëpp mun ñoo nekk candidat candidat yi ñu ñu ñu bari war a mu néew si si ma yaakaar mun na doon commencé juróom juróom-ñaar ba juróom-ñeent candidat bootu ñoo ñoo si naar a dem parce que ni système parrainage bi demee parce que parrainage bi dafay service filtre ñu mën a xam ñan ñoo mën a dem ñan ñoo mën a am parrain ak ñan ñoo war a mën a nekk candidat moo tax système parrainage bi réglé na jeu boobu waaw ku mu neex nag mën nga déposer loolu day day gën a ñoŋal sax démocratie ñu xam ne Sénégal démocratie bu majeur la kenn dañalul nit ki mu laaj mu daagaanu baatu réew mi waaye critères yi da ko a remplir da a remplir kon mm. euh, man gisuma si benn inconvénient comme ñi si gis benn inconvénient li ma gis daal mooy euh, système de parrainage bi war nañ war nañu xoolaat waxtaanaat ba gën gën gën ko gën ko ñoŋa mën nañ ko ñoŋal mais gën ko defaraat ba mun a permettre citoyens yenn ñu mën a accéder facilement pour mën a seen i parrain mën a accéder parrain yi pour mën a bokk si élection présidentielle mm-hmm. euh, léegi Djibril Diop ñu gis ni jour bi ñuy dem di jëli euh, euh, fiche parrainage yi waa ex Pastef gis nañ fa ñeneen tooñ c'est vrai que Ousmane Sonko yónnee na mandataire mais Birame Souleye yónnee na Guy Marius Sagna en tout cas am na trois wala quatre euh, membre Pastef yoo xam ne yónnee nañ pour jël fiche de de parrainage donc euh, yow naka nga gisee mbir moomu. bon man xam nga gisuma ci benn inconvénient c'est des citoyens sénégalais yu am droit bokk ci parti politique am droit bokk participer ci élection présidentielle comme comme comme dañ leen a may ñu participer élection présidentielle Euh, te benn loi waxul nit diw ak diw moo bokk te ñoom dañu bokkoon ci benn parti boo xam ne dañ ko disu comme parti boobu ah ñoom am nañ droit nekk ay citoyen dem wuti ay réel yu wax ñu def déposé foofu aw ma ci inconvénient inconvénient bi ñuy wax mooy man benn message mooy sànq bi wax mooy Ousmane Sonko mooy d'abord il faut que DG édifie ñu ban loi ak yan critère moo tax ñu rejeté euh, mandataire dañ ko jox fiche parrainage loolu mooy suñu problème bu fekkee nag en ce qui nag ay plan B ak plan plan C plan A parce que man amul plan B plan A ndax Ousmane Sonko am na mandataire bu wéyoon ni kon donc Ousmane Sonko mooy candidat ex Pastef ak tamit ñi ma àndal kon donc kooku man gisuma mu am plan B te parce que bu amoon plan B du déposé ni du dem di yónni mandataire muy dem di ko récupérer fii pour ñu parrainer Mhm. yow candidat nga Djibril walla doo candidat pour élection présidentielle yi waaw pour élection présidentielle yi ñëpp man ñun dañu bokk ci parti politique ñu koy jiite waaye parti politique bi dafa am nu muy doxee bien vrai que ne fan yi ñu ngi nekkoon ci ay tournées religieuses ak tamit ay tournées dem rencontre non responsable euh, dafa am kuréel boo xam ne moom moo moom moo nank suñu parti kuréel boobu nank suñu suñu suma parti nag Euh, kuréel kuréel boobu dafa am nu mu war di doxee mooy kuréel yi avant ñuy def élection présidentielle kuréel dañuy réunir pour waxtaan léegi nag euh, ci kuréel boobu nag am na am na lu ñu war a njëkk a def mooy lancer le naan mooy dem collecté ji loolu dinañ ko def fan yu nag pour déclaration candidature u parti bi conférence nationale dina réunir dans deux semaines nga xam ne au niveau national et international responsable yi si bokk yëpp dañu mën réunir pour décider ne diwkat mooy doon suñu candidat te diwkat nañu àndal mais pour le parrainage comme ni ko bànqaasu parti bi waxee rek bu jo bu parrainage bu ñu ko lancé rek kuréel bi war na réunir pour dem collecte ji parrainage kon donc ñu ngi su le terrain collecte war a tàmbali collecte parrainage d'ailleurs am nañu ko commencé euh, te dañoo duñu xaar ba bañ koy lancé officiellement mais dañuy xaar conférence nationale yi moom mooy décider wax ne nag parti soit Djibril Diop moo doon candidat wala kii la ñu àndal si candidat foofu daal nañ nekk te dañuy xaar bu conférence nationale bi nekk édifié Sénégal ak seen ak militants yi ak militantes yi. kon merci beaucoup Djibril Diop ñu ngi lay remercier bu baax a baax. jërëjëf maa ngi lay fay Ndeye Moro. voilà may fàttali ni Djibril Diop yaay leader au pour la République ñu lay remercier en tout cas bu baax a baax ci disponibilité bi merci. ah